monsieur le président madame la ministre de la justice monsieur le ministre auprès du ministre monsieur Samba, di nuyu monsieur le ministre du travail nuyu mes chers collègues députés et di moi madame la ministre moment bi c'est un moment triste c'est un moment triste parce que nous, nous ñëpp ñu salle di joxe suñuy position di wax suñuy xalaat mais man actuellement sama xel dafa dem ci ñi nga dañoo boom seeni doom ñu ñàkk li nga xam ni nekk et que ñu toog actuellement ci seeni biiru salon du seetaan débat bi nga xam ni moom am tey jëm ci li nga parce que tey ni mu méttee ak ni mu mel ci doomi aadama ak nit koo xam ne daf laa jege ku faatu lenn rek te allah kulli yàlla dañuy faatu mais lenn moo la mënoon a soulager lenn moo la mënoon tey au moins mu am lu dal ci yow mooy ñu ne la kat jàpp nañu ki nga xam ne moo boom sa doom wala moo rey sa ki nga xam ne sa mbokk la jàpp nañ ko mi ngi nii yoon def na li nga xam ne moo nekk liggéeyam mais tey au moment bi ñu leen di fàttali. li nga xam ni ñoom au moins seen yaram seen seen xol am na tuuti ci loo xam ni sax même bu fekkee mënuñoo fàtte mais ñu ngi doon nangu kenikat ñàkk nañu xëy na am na ñoo xam ne am nañ fu ñu féete woon mais tey lan lañ leen koy fàttalikoo mooy ñi nga xam ni seeni njaboot nañ faatu nañu tey dañuy naan dañuy voter une loi d'amnistie pour wax kan ni kenn du xam kan moo rey ñi nga xam ni moo nekk seen njaboot et que tey aussi sama xel dem na ci ñi nga xamni ñu ngi nekk ci biir kasso bi ko en commission j'ai fait dix mois à la prison de Rebeuss sama pire ennemi yéenewuma ko li nga xamni mo nekk kasso mais on a entendu ici des accusations très graves madame la ministre je me rappelle de votre discours euh, ci fi nga xamni mo nekk RFI ou France 24 je me rappelle des déclarations yi nga xamni ni am nañu pour wax que ni y a des gens yo xamni am na luñ leen ji luñ lay toppee lo xamni ni askanu Sénégal sax biñu ko déggé tit nañu maintenant on va venir nous dire que ni soit ñoñu li ñu leen doon wax yépp dara da cee nekkul dara da cee amul et que dañuy effacer lépp pour bu ko defee ñu mën a dem moi je suis du parti démocratique sénégalais man Serigne Abou Mbacké Thiam jàpp naa ni sama biir bàmmeel man rek maa fay nekk kenn du ma fa fekk ak samay jëf te li ma gëm laay wax lu ma gëmul du ma ko wax et que tey bu ñu taxawee ñu ne nañu amnistier nañu baale nañu fàtte alors que la justice n'a pas été rendue alors que xamuñu kan moo def ak kan moo deful madame la ministre posé naa la ko qu'est-ce qui justifie l'urgence de cette loi parce que l'urgence est de droit l'urgence est prévue par les textes mais je ne comprends pas actuellement ban urgence moo am bu war a tax ñu andi cette loi d'amnistie def ko li ne urgence madame la ministre tey bu ma sañoon kenn dootu des ci et que je suis pour secrétaire yi nga xamni ne ñu nekk ci bir kasso yi que ni dañ leen bëgg a parce que man amna ci ño xamni japp jàpp naa ni xëy na du wone ñëpp def mais amna ci ño xamni ci manifestation politique mën nañ leen ci japp te defuñu parce que man victime la moo tax ma xam li nekkul ci lool et que tey ñooñu war nañ leen a parce que famille ak njaboot sa njaboot nekk ci kasso ni ngay di am mais aussi est-ce qu'il y a pas d'autre voie et moyens yo xamni mën nañ ko utiliser pour génnee nit yoy nonu mais aussi pour soulager ñi nga xamni ñoom aussi jàpp nañ ni tey war nañ leen a mën a rendre justice muy li nga xam ne moo nekk les victimes madame la ministre moi ki nga xam ne moo nekk Karim Meïssa Wade quand on lui a parlé d'une loi d'amnistie ne ko pour ñu amnistier la te il ne l'a jamais demandé Karim a dit que ni bugguma amnistie tey bugguma amnistie ëllëg dama bëgg ñu attewaat ma ñu setal ma pour wane que ni li nga xam ni dama dañ ma koy jii defuma ko c'est cette fierté bi ma am ci Karim Meïssa Wade fierté boobu laa am ci le président Abdoulaye Wade fierté bobu la am ci les militants du PDS fierté bobu la am ci PDS que même bu féké d'accord accord nga ak ñoom ñàkk a d' accord ak ñoom position c'est xalaat ak fiñu jëm ñom dañu koy wax. amna ay questions yi ma la posé ni vous avez parlé de droit civique et politique et amna ko ko mars 2021 ba léegi gisaguma ku ñu atté par rapport ku perte droit civique et politique et que lepp lo xamni ngeen ko ci ma def pour moi cette loi là tay fiñu ñu fi di wax c'est tay man ñi nga xamni ne ñoo ci ñàkk seen njaboot et que ça ne devait pas faire l'objet d'un débat et que madame la ministre maa ngi di loi parce que c'est pas quelque chose que le peuple sénégalais d'accord